suñ la dóoree day doo métti bi day métti tellement ko yow doo mën a réa li ngay réagir sax doo ko xam. mais li li li ci ci ci jigéen loolu aussi tamit. ah koo xam ne yor na carte de presse am yor na autorisation yor sama maanaam luy wane ne taskatu xibaar laa yëpp yore naa ko yor sama autorisation man préfet léegi lan la ñu bëgg tamit. Eh, eh, est ce que wax nga ko sa kilifa yi aussi. ak lan ngeen nar a def sama kilifa yi ñoom ñëpp wax nañu leen ko ñu ngi saisir jéem a saisir ministre de l' intérieur parce que tamit lii man exemple laa si parce que parmi mes confrères ak mes consoeurs parce que mënuñu autorisation war a liggéey vingt heures nga war a joxe ay xibaar yoo xam ne Touba li fi am tey ci wàllu